asalaamaaleykum mbokku internet yi nga xam ne yéen a tàmmu seen chaîne d'information Dakar TV point info ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal ci topp bi nga xam ne bii yéen a ngi koy topp xibaar yi nga xam ne yi ñu ngi leen koy indil tey nag li nga xam ne lii moom la leen indil dafa nekk lu doy waar lu tiis te métti fan la xewee fii ci Gueule Tapée ci kër ki nga xam ne kii moom la ñuy wax monsieur Ndoye suñ équipe de reportage de na barab pour jéem a fexe ba tataan la nga xam li moy information yi wér te wóor comme ni ñu koy defee saa yu nekk waaye nag yàlla dafa dogal buñu ñu dañ ñoo refusé loon accès bi ci biir kër gi waye tamit téwul né jot nañ fa jël ay témoignages yo xam ne yi ñu ngi ko jëlee si ay dekkondo en fait ñun jour ciow bi nag kër yi lañ nekkoon parce que moment ba tam la 20 h di waji jot jusque ñu dégg say dégg ciow dégg yuuxu comme la fait que daa wuy ray na ko lañ dégg sax ñu daw yaakaar dañuy xey xati comme chaque fois ñu yaakaar dafay xeex ñu dem nak ñu dégg lak na ko ñun comme ay xol dëkkandoo suñu xol sot man mii di wax ak yow taxaw naa ci buntu paranteeram saaga naa ko je l'ai traité de que tamit neexul surtout bi ma duggee ba jàkkaarloo nit ki mu lakk boobu dama gul hôpital la nga fu nekk si koo xamante ne chaque da ka ko yow xamal ni dinaa la yàq ba ba kenn dootu la bëgg nga nga day yeg nit kooku mën a wax loolu tey mu lakk yaram bi yëpp ba yow tey amoo foo jàpp foo laa mën a day ak may gaañ ba si yére bi ñu solal ñu fekk seen papa mu ngi taxaw si buntu néeg bi ne kenn du dugg banyun sa kalesa sa pasen nañ ko ne ko yow gay monte gam nyun ngay sa wax nañ ko loolu ñu taxaw ci palanteer bi mais bi tiitul raful pas ka amana musot sotti na ndox ne bisul la mu lamel nak la mel nyun suñ sagas ñu koy nyuton tunan palanteer mi ngi tontu naan ñu caga yi ngeen doon moom mi di xuloo ko moom bu metti ba mujj gi ñu di nak amna na xelu jam bopam ne xale dañ koo ba jam ko ci li ñu wax police ne loolu la wax alors que ñu bi ñuy xuloo ken dara ko doyul

ñun dëkkandoo daf ñuy yéem parce que man bi ma juddoo xam-xammee ba tey man ay tur lakk na ko saaf na ko sotti def na ko nii man dama koy dégg ci presse bi mais a gis te tey ji am na ku ci lakk koo xam te ne ginnaaw gi la kooku ko laal ji xale la laal loolu fan lañ koy wax jee kenn nekk ne réanimation ba xam yàlla dina def mu jóg fa ndax ku ñu kii digool démb intervention depuis démb ba tey ngay nelaw te médecin ñu ngi naan est-ce que yeewu bi dina gaaw te kii 1000 francs faje ko de ay mille tamit faje ko faj nga yàq avenir u kooku est ce que tamit psychologiquement det na nekk on ne sait jamais nous tout ce qu'on veut justice soit faite parce que la fille na am genre yu di dem njàmbur bi di ci génnaat kon tey ji bu droit de l'homme intervenir ci lii bu subaa le pire mën na amaat bu boobaa du leen arrangé ndax fa intoore am il faut que justice soit faite il faut que ñu liggéey bi ñu def ko parce que mi ngi nii tey ñu yóbbu au contraire amaana sax am na lu mu bëggoon te amu ko nag bu sañoon day ñaay kër gi ndax yow bu ñu la joxee tous les pouvoirs yow jox la dépense bi privé xale yi seen waañ privé leen seen añ privé leen seen reer yow yaay yoonu yëpp xale yi léegi ñoom ñooy cotiser pour jox seen bopp dund koo xamante seen papa 10 000 francs la daan joxe dépense dem ba ñoom ñooy cotiser pour toggal seen bopp kooku boo demee ba lakk leen kañ yow la nga bëgg mooy loo génne leen kër gi mais yow amatoo dara loo soxla ci kër gi parce que yow yaay fayee location yow yaay kër gi yaay tëj yaay ubbi jànk bi yow lay liggéeyee liggéeyul waa kër gi pa bi mooy jëndi couche pa bi mooy wéri yére yow yow li nga bëgg lépp sa jëkkër soo waxee mu ne elle-même je l'aime nous nous aimons pa bi loolu lay wax nous nous aimons ah man daal sérieux boo bëggee dégg dëgg man en tant que citoyenne sénégalaise dama bëgg que justice soit faite man dama bëgg que justice soit faite parce que tey xale yii ñu ndaw ñaari doomam yu ndaw yi mérité ñu yaay ju melni. nii parce que mo mi ngi mi ngi wax ne dafa doon waji sanga ay doomam hôpital mo leen xamal ni leen ndox mi dafa am doulin. kon da ko prévoir Ta mom nee dafa doon sanga ay doomam moo tax mu tegoon ndox mi Mo ndox mi am doulin lay sanga ay doomam mu melni nak fi lañ ñuy yëmandi ak yeen. Waye di leen xamal ne rek dakartv.info dina len topol ciow lolou ba xam fan lay mujjee bu ñu xamee ne kat ñii di famille bi déposé na ñaari plainte